amal ab déclaration di woote jàmm ak dal naka noonu dialogue ngir ñu daal di mën a sóobu nag ci élection présidentielle yu ànd ak leexaange te duñu ca bedd kenn seeni kàddu nag ñu ngi ko xaatim ci ab document boo xam ne rek moom la ñu fësal mu di ab woote bu bàyyeekoo ci ab du Diouf ak maître Abdoulaye Wade ngir ñu amal ab dialogue politique yër leen bi la yëglekaay jamono joojee nag la solo yëglekaay di xam ne ne waa parti socialiste ak waa AFP nag ñoom taxaw nañu temm nag ngir ñu daal di sóobu ci boobee dialogue Karim Meïssa Wade moom di rafetlu bu baax nag taxawaay gi nga xam ne rek ñaari njiitu réew yi fi woon nag amee nañ ko jamono ji ci situation bi am ci réew Sénégal Khalifa Ababacar Sall nag ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ni dialogue bi moom jamono ji nag du priorité leneen loo xam ne rek ña ngay àddu di ci jëmale nag fi mu toll nii bokk na ci loi amnistie bi ñuy laam-laamee dialogue bi nga xam ne rek moom la ñuy bëgg amal ak yeneen ak yeneen libération di xam ne nag ni Pierre Atepa Goudiaby Alioune Tine nag ne fi mu toll nii nag ña ngay def seen kéem kàttan moom fondateur bu Afrikajom Santé nag ma ngay xam ne ni daal ci fan yi ñu jëm kii di man Sonko ak ay détenu politique naka daan leen libéré ci kaso yi Thierno Alassane Sall naka ne moom nanguwul tey nanguwul ëllëg ñuy amal ab loi amnistie képp koo xam ne rek ànd nga ci xamal na yaa ngi trahir intérêt bu Sénégal ca beneen wàll wa nag a Touré moom ma ngay tontu ñaari njiitu réew yi nga xam ne rek moo di maître Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ne daal li gën a am solo te mën a indi dal ci réew Sénégal bokk na nag ci ñu daal di respecté li nga xam ne rek moo di suñuy constitution Khalifa Sall nag ne moom demul ci dialogue bi tey demul ci dialogue bi ëllëg mel na ku leen ni tontu nag réseau des jeunes maires yu mouvance présidentielle bi nag rafetlu bu baax dogal gi nga xam ne rek waa assemblée nationale jël nañ ko ci dàq élection yi ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2024 bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu nag boobee tuxal gi ñu tuxal élection présidentielle yi nag du bëgg-bëggu njiitu réew mi nag waaye ñii nga xamante ni nag dañuy taxaw di wane ne intérêt Sénégal moo leen soxal te dara amu ca nag muy waa kujje gi bokk na ci Mimi Touré Thierno Alassane Sall Bougane Gueye Dany Boubacar Camara ak consort ñoom ñooñee nag ñoo sàkk sàkku woon ñu daal di tuxal élection yi ba noppi taxaw nag di wane ci kanamu nit ñi ne ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg lu ñu mel nag ñoom waa réseau des jeunes maires yu mouvance présidentielle bi nag jàpp nañ ne rafetul ci gis-gis te nit yu ñu mel nag ñu leen a dénk suñu réew ngir ñu di ko jiitee jamono ji nag ñu taxaw ma ngir jàppale kii di président Macky du ñu nangu nag kenn muy tàbbil réewum Sénégal ci guuta ndax ay intérêt personnel moonte day intérêt Sénégal loolee moo waral nag Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade daal di génn ci patt pataaral gi ñu nekkoon Sud Quotidien daal di xam ne ne ñaari njiitu réew yi ñu ngi woo jeunesse bi nag ñu dakkal ci ni mu gën a gaawee fitna gi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ci réew Sénégal ak ni ñuy caxat-caxatee nag li nga xamante ne moo di suñuy moomeel te bañ a nag ñu leen di manipuler ci lenn loo xam ne rek mën naa yëkkati ay fitna fii ci réew Sénégal classe politique bi ña ngi leen di woo nag ñu dem participer ci dialogue bi nga xam ne rek ñu ngi leen koy woo ngir mën a amal élection présidentielle yi fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2024 dialogue au cœur loolee nag la yëgle bi na ñaari njiitu réew yi nag ña ngay jéem a fay taal bi nga xam ne rek mi ngi tàkk ak boobaak léegi ginnaaw bi ñu tuxalee élection présidentielle yi Vox Populi dellu soir ci diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall ñeel protocole bu Cap Manuel bi nga xam ne rek moom la ñuy doxal jamono ji Alioune Tine nag ne du joxe benn date waaye xam ne ni daal fii ak ay fan nag kii di Ousmane Sonko ak ay détenu politique dañ leen génnee féexal leen ci kaso yi yéenekaay bi ne Ousmane sonk ak Macky Sall nag amatuñu benn choix ndax bu fekkente ni nag dal ak jàmm la ñu bëgg ci réew Sénégal faaw ñu daal di amal ay waxtaan ngir déggoo mën a am waxtaan ci doon daal enquête yëglekaay ma ngay xam ne ni nag ab loi d'amnistie nag waxtaanee nañu ko ca conseil des ministres bi ñu doon amal àllarba ji ñu weesu la ca des nag bokk na ci ñu daal koy woote ca pencum ndaw réew ma report di kawo bés bi le jour daal xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne Pierre Atepa Goudiaby Marème Faye Sall jamono ji nag ña seeni puso rek di ñaw diggante yi ngir jàmm daal di ci réew Sénégal addu jëmale ci commission